bon euh, dañu fi daje woon tey c'est parce que dañu am ay menaces yu bëri ci moment yi nga xamante ne nii ñu ngi koy dund ci biir tool yi te ñun ñi ngi nekk ay doomu sénégalais yoo xamante ne nii dañu noppal état ci côté yëpp amuñu dara lu nga xamante ne nii maanaam dañ ci sonal état joguñu di def benn manifestation. loo xama loo xam ne day jëm ci taal pono wala yàq dëkk wala lakk kaar ak yu demee noonu yàlla moo ñu indi fii ci tool yi ak li ñu jot a am akus néew ñenn ñi jóge Europe ku mel ni man maa ngi jógee Italie pour dire euh, voglio voglio salire euh, tous les gente ci amico loolu yëpp pour wane ne rek maanaam ñun ay immigré ñu yu jógee bitim réew ñëw fii toog di daan suñu doole ci biir tool yi tool yi nga xam ne moom lañu nekk nag dafa am ay nit ñi nga xam ne dañ fi ñëw ñu leen di tuddee les victimes de gàddaay les victimes de gàddaay dëgg la euh, dañ dañ leen tooñoon ñu nekk les ay victimes ci kaw victimes yooyu ñu nekk nag euh, le président Macky Sall moom ci boppam ak mbaaxam ne leen nañu xool ci seeni mbir pour ñu mën leen a delloo lu ñu yoroon def ak ñoom jàkkaarloo waaye ginnaaw bañ leen ko delloowee dañoo ñëw implanté wu ci biir tool yi kon muy ay victimes yoo xamante ne ni dañuy crewaat ay yeneen victimes te loolu rek doyul euh, maanaam dañu mujjee tous les bandes de filao maanaam ñu ñu euh, bande bi yëpp levé nañu ko def ko ci ay tur tur yoo xamante ne ni kenn xamul fu ñu dëkk. té ñun ñi ngi ci tool yi ñi depuis 30 ans ñi depuis 20 ans man mi di wax ak yeen depuis 13 ans 2013 ba suñu jonn yalla tay ji ni ma ngi fi ñi ngi ñi ngi interpeller le président Macky Sall di xamal ne sa njabot sa njabot ga ngi ni sa njabot gi ñi ngi leen di de tous les côtés di dugg ci ay bureau di lijeenti seeni ñen ñi di lijeenti seeni bop ah pour pour xagn ñenen loolu nag le président de Macky Sall moom mi nga xamante ne nii moom mooy gardien bi nga xamante ne nii mooy garder tous les sénégalais ñu ngi koy xamal ne ko ci biir njaboot gi la ñu bokk ci biir njaboot gi lañu ñu bokk foofu laay mën a yemale suma kàddu waaw li nga xamante ne nii moom la ñuy wut jàpp ñu ne du am saafara c'est parce que bu amul saafara waxuma la ñi nga xam ne ñoom ñooy bay ci tool yi mais ñi dëkk seen biir kër sax dañuy am jafe-jafe parce que les les plupart des gens dañuy ñëw fii di jënd naanaa ñenn ñi dañuy bay fii euh, euh, dañuy bay fii ay karot di ko yóbbu caaro yi ak ci yeneen ci yeneen raison kon euh, li ñu li ñu nekkee fii bu amul saafara dina am yeneen kër ak ñeneen i nit ñoo xamante ne nii du ñu mën a am saafara voilà li ñuy li ñuy li ñuy réclamer mooy bon sommation yi ñu yi nga xam ne moom lañ ñu indil ak euh, ñi nga xamante ne nii dañuy dañuy ñëw pour wane ne ñoom ñooy agriculture pour jéem a natt tool yi maanaam loolu moo njëkkut a jaar yoon pour natt tool yi ginnaaw bi ñuy nattee tool yi ba pare nag maanaam euh, benn nit boo xamante ne nii da nga quasi dangay ngay da ngay occupé lu tolloog euh, un hectare wala lu ëpp un hectare ñu ne dañ lay jox benn huit cent mille franc benn sept cent mille franc ah ci loo xamante ne nii ëpp na un un hectare jëmbat fi ay coco jëmbat fi ay banana di fi bay carotte di fi bay kaani ak yeneen ak yeneen ay dédommagement trois cent mille kooku bu jógee fii agresseur lay doon kooku bu jógee fii sàcc lay doon kooku bu jógee fii mooy sonal le président Macky Sall kon loolu lu mat a lu mat a lu mat a xoolaat la. Ah, fii nii ñu fi ñu fiy liggéey boo xoolee gàddaay ba ba waruwaay romb waruwaay dem ba Malika ñi fi nekk di fi liggéey ëpp nañu deux cent cinquante ëpp nañu trois cent. sa parce que bu fekkee dañ si boole euh, baana baana yi nga xamante ne nii dañuy ñëw fii di fi jënd boole fi borom saret yi nga xamante ni dañuy ñëw di fi déplacer ay bagages ak di fi indi ay fumier boole fi ñeneen ñi nga xamante ne nii bu tey jii bu bu sàkket jotee ñoom la ñuy woo ñoom ñooy ñëw di sàkket ah boole si ñi nga xamante ne nii bu witti jotee da parce que benn nit du ko mën ñaari nit di ko mën dañuy woo ñeneen ñu ñëw di ko witti ñooñu boo leen xayma dinañ dem ah plus de 400 personnes. 400 personnes yooyu bu fekkente ne ni euh, menacé nañ leen euh, ci état rek la ñuy dellu siwaat